d'accord oui monsieur le ñoo ngi leen di fay. voilà tey di dañuy sant yàlla parce que yàlla moo dogaloon nekk euh, ñetti at yi weesu euh, Covid 19 dafay jox ci diggante bi ba du ñu mën a def euh, lii di nga xam ne mooy célébration journée Cheikh Ahmadou Bamba. bon yàlla mayaat ñu yëkkatiwaat li mu indi woon muy feebar bi Covid 19. ba ñu mën a alors euh, nekk fii di célébrer bis nga xamante ne que voilà tradition la maintenant ci jaspora bi symbole la ci diaspora bi bon au-delà des États-Unis defe naa ne Bamba Day Sénégal sax dañ ciy attention parce que li muy symboliser moom ak. waaw xam nga euh, dëkk boo fi nekkee pendant très longtemps parce que euh, proclamation bu Bamba Day ñi ko njëkk am en 89 88 la fi sëñ bi euh, njëkk dem ci le maire Mayo Dinkins mu recevoir ko ñu def Bamba Day en 89 donc boo ba léegi bu dee une communauté mi ngi nekk fii di def lu mel noonu successivement chaque année ñu def ko mosuñu am rupture loolu mooy wane ne que communauté boo xam ne la communauté bu respectable la te dëkk bii boo nekkee vraiment une communauté respectable loo fi bëgg mën ko am donc euh, moo tax yu mel nii bu ñëwee c'est des formalité il y a des bon demandes d'autorisation à déposer yooyu kii ak yooyu waaye c'est des formalités pour la plupart ndaxte xam nañu ne ñii bu ñu jógee jàmm rek lañ moo leen yëkkati bu ñu jógee yëkkati lu baax rek la lu rafet donc euh, day contribuer ci li nga xamante ne que mooy richesse culture américaine d'abord mais aussi enrichir euh, l'aspect religieux euh, l'aspect de la paix la promotion de la paix ak yooyu yëpp euh, nga xamante ne que mooy dëgg-dëgg jàngale sëriñ bi. mais nag aussi euh, comme ni ma ko waxee sànq président de la république ni mu koy defee chaque année mu yónnee fii une délégation une forte délégation euh, ministérielle buy ñëw di ànd ak sëriñ bi ci activités yi mais cette fois-ci ñëpp xam nañ ne xat na ndaxte jeudi. dimanche war a nekk élection dafay jafe nit mën a jógee Sénégal ñëw def lii après mën delluwaat à temps pour mën a def loolu nga xam ne mooy euh, le vote loolu moo tax euh, jotuñoo ñëw waaye comme ñoo ko fi toogal aussi mu jox ñu wool ñu boppam nañu nañ ko fi représenté nekk ci wetu sëriñ bi ba nga xamante ne que lépp loo xamante ne war nañ ko yëkkati ci kàddu ñu yëkkati ko ci kàddu lépp loo xamante ne que mooy feddali kóllëreem moom sëriñ bi ak euh, président de la république ñu mën ko yëkkati seedeel ko ci kanamu kanamu sëriñ bi ak kanamu mbooloo bi ñu xam dëgg-dëgg aussi Euh, taxawaayu président ci li nga xam ne mooy euh, wetu institut Al Azhar mu nekk loo xam ne lu yàgg la parce que je rappelle que depuis 2012 ci la ñu commencé di reconnaître le bac di orienter ñi nga xamante ne que ñooy des étudiants ci euh, université Cheikh Ahmadou Bamba boobu ba léegi ñu koy def donc loolu aussi sëñ bi vous l'avez entendu moom it mu yëkkati ci kàddu am ci mbégte vraiment remercie ci président ci ci reconnaissance boobu ak acte nga xam ne mi ngi koy ci euh, waaw parce que dafay dafay dafay euh, dëggal rek ne euh, am nañu de des des des ressources yoo xamante ne que ñu ngi nekk suñu biir yoo xam ne lu bari loo xam ne bu ñu ko soxlaa mën nañ bu ñu ko xoolee suñu biir dinañ ko gis parce que bu ñu joxante bu ñu joxantewee chance et loolu. c'est encore euh, l'occasion de, de remercier et de féliciter le président de la République bi am gis-gis boobu nga xamante ne que moo permettre aujourd'hui ñuy orienter les bacheliers arabes ci li nga xamante ne que mooy les euh, universités du Sénégal euh, alors euh, Institut Al-Azhar nekk loo xam ne lu yàgg la depuis Cheikh Mourtada nga xam ne le nombre d'étudiants ça dépense les cent mille ñu def euh, ay euh, examen le baccalauréat am 75 pour cent de réussite avec 230 mentions xam nga loolu vraiment école bu ko amoon dinañ ko yëkkati wax ko donc moo tax aussi yëkkati ko wax ko dafay rafet mais euh, loolu li muy wane rek mooy euh, institut ou bien structure yu mel noonu bu ñu amee accompagnement de l'État lu bëri mën nañ ko def lu bëri mën nañ ko def donc euh, en tout cas c'est une fierté que ñu gis ne que opportunité yooyu mi ngi mi ngi disponible pour ñi nga xam ne peut-être jaaruñu Euh, ci euh, filière classique nga xam ne mooy dem école primaire dem ki ainsi de suite mais ñi ngi dugg ci euh, filière arab bi dem ci ba mën a présenter au bac et et et ça c'est le bac national waxuma la le back arab rek mën ci am taux de réussite de soixante soixante quinze pour cent am ci deux cent trente mentions vraiment c'est une source de fierté pour nous. waaw bon euh, am nañ ci satisfaction dans la mesure où euh, sénégalais yi je pense que li ëpp importance mooy li ñu leen di liggéeyal te gis nañ ko loolu la euh, jarul xuloo jarul xeex jarul wax lu ñaaw lenn rek moo ci am importance mooy que bu fekkente ne que ñi ngi dem di dagaan baatu baatu mbokk yi nañ dem wax ak ñoom ci lan la ñu yéene nañ dem wax ak ñoom ci lan la ñu def bu fekkee ne ñoo fi nekk te président de la république et sa coalition ñëpp xam nañu euh, résultat yi nga xamante ne vraiment depuis 2012 am nañ ko ci secteur yëpp secteur boo gis rek santé euh, muy euh, transport infrastructure gis nañu sport lépp loo xam ne nekkoon na énergie j'en passe lépp loo xam ne nekk na mbébétu sénégalais y a pas un seul secteur qui est resté en rade lépp loo xam ne président de la république yëg na ko mu nekk yi tey Sénégal taxaw na ci donc booy liggéey loolu day am résultat day am résultat parce que dañuy wax ne maam Cheikh Ibra Fall moom wax ne euh, nañu dem ba yegg ci foo xam ne dañuy fay wax bàyyi jëf kon nag jëf bi nga xam ne président mi ngi koy jëf depuis lors donc dafa am résultat résultat bi mooy que saa bu soxlaa baatu Sénégal yi dinañ ko déglu joxaat ko baat